man j'étais à Ziguinchor Cheikh Ahmed Tidiane mu nga woon foofa man biñ ma woowee vers 18 yéegal ma ni lundi 18 yéegal ma ni problème dafa am ci Dakar mbir mi dafa ma bett parce que man jàpp moon ni pour man instant boobu nit ñi génn nañu DG e ba ñibbi parce ku dugg vingt heures ou vingt une heures la veille ba dix huit heures le lendemain bi ñu ma wooyee ne ma problème dafa am ci liste dakaar bi man je je n'en revenais pas Khalifa Ababacar Sall moo ma woo ne ma problème am na ci sept députés Dakar yi te li andi problème bi mooy ñun dañoo defoon préparer investiture ba pare bu ñu demee ba ba war yeggali dimanche xam ngeen ni dimanche la la woon date dépôt bi dimanche vers midi lañu ñu trouvé un accord gars yi ñëw signé fii au premier ak waa wallu ñu war a reprendre l'ensemble des départements loolu du liggéey bu ndaw ndakaaru luñ ci déggoo woon mooy juróom ñaari député la ñun dinañ ci am juróom benn wàllu Sénégal am ci benn bi ñu demee def le travail ci wàllu département bi ñoom nee nañ dañoo jàppoon ni wàllu benn lañ ko waroon jox boo xam ne jigéen la wàllu ne déedéet comme benn rek ngeen ma jox góor la war a doon loolu moo àndi woon blocage bi bi ñu ma woowee wax ma ko man li ma leen njëkk a wax mooy jox leen wàllu góor daa di dugal benn jigéen rocc benn góor ñu avancé parce que wax dëgg yàlla su ñu demee ba ne list Dakar am na problème ñu naan benn góor ak benn jigéen bu ñu waroon def nii moo ko andi du ñu xam lu ñuy wax askan bi donc génne leen benn góor loolu 18 heures ba 23 heures et quelque ci loolu lañu ne woon ñu ne dama dégg ñu bëri ne. xalifa Ababacar sar moo ko def moo ko tey te dafa bëggoon piéger parce que Barthélemy la bañ mu def lii et cetera loolu dara du ci dëgg dara du ci dëgg te dama leen ci wax ay firnde yu leer vers vingt bi ma waxee ak Khalifa dama ko ne xalifa diggante Babacar Mbeng ak Pala sàmb génne ci kenn nga dugal benn jigéen ñu dem déposer liste bi mu ne ma il faut ma waxtaan ceeg Barthélemy Diaz parce que Barthélemy Diaz tient à avoir ses trois députés ses trois hommes à Dakar 21 ma woowaat ko ne ko est-ce ngeen ko mu ne ma xaaral ma woo barte mu ngi woo Bart def ko haut-parleur maa ngi koy dégg bi mu ko waxee Bart daf ko ne mënuñu changer parce que fi ma ko teg mooy dama soxla ñu may jàppale ci campagne bi Dakar. il faut ma am ay maire yoo xam ne mën nañu xeex te dinaa mën a ànd ak ñoom ci campagne bi donc su ngeen ma génneelee maire yooyu dinaa am problème pour battre campagne ma ne ko xalifa raccrochel s'il te mu raccroché ma ne ko waatal Bart nga dugal ma bi mu woowee Bart dugal ma li ma la wax nii c'est vingt une heures et quelque ma ne ko Barthélemy génne leen benn góor ngeen dugal benn jigéen parce que du ñu liggéey li ñu liggéey ba egsi fii ñu naan ñu benn góor ak benn jigéen ñu nar a yàq suñu lis et li ma la wax nii c'est pas une consultation parce que doo leader c'est des leaders qui décident ici li ma la wax c'est une décision on va sortir une femme un homme et on va mettre une femme ñu waxtaan waxtaan mu ne ma d'accord na nañu xool léegi moom Khalifa na woo Palla pour wax ko ko ñu arrêté loolu bi ma toogee ba 22 heures y' a pas d' évolution j'ai appelé Déthié Fall ma ne ko Déthié non yum mii moom ma woo il était à la direction générale mu ne ma y' un problème et cetera ma ne ko passe ma Déthié il me passe Déthié ma ne ko Déthié génneel un homme nga dugal une femme tu déposes la liste parce que tamit nag coalition bi diw moom ko diw diw moom ko fee saa ñu avancé. il me dit écoute nañu xaar tuuti comme dañoo ànd ànd bu rafet ba fii nañu xool ni ñuy def ak suñu euh, nos amis de taxaw pour bañ mu mel ni dañoo wañ seen loxo force leen def affaire bi ma ne ko léegi dëcce suñu toogee ba vingt ba vingt trois heures trente minuit waa taxaw décision qu'est-ce fait mu ne boobaa je prends mes responsabilités je fais ce que j'ai à je dépose ma ne ko d'accord noonu noonu ba xalifa vers 23 heures et quelques mu ne ma on a trouvé un accord on va sortir par là et on va mettre Ngoné Ngoné Mbengue lii soo gisee ma wax ko c'est pas que dama bëgg a nettali ay affaire biir mais dama bëgg ñu génne lenn mooy les gens de mauvaise fois nga xam ne duñu wax dëgg mukk ak nu ñu def ba yàq jàpp nañ ni mun nañu féewale Barthélemy Diaz ak xalifa Sall wala Ousmane Sonko ak Khalifa Sall dégg naa ci kenn koo xam ne dafa fen a fen ba ñuul kukk ngeen jégal ma ci kàddu gi kilifa yi du mus du mu mus a wax ci àdduna suba ba ngoon jot du dëgg naan Sonko a di a Khalifa allez vous xam nga mag mu toll noonu nga xam ne tey li la dese ci dund euh, li nga dund moo dese la dese dund ngay wax loo xam ne dara du ci dëgg kon. ñooñu laa bëgg sénégalais xam ni fii problème amu fi lii rek la du benn complot du loo xam ne Macky moo jënd ma Massamba wala ba amul ci Yewwi Askan Wi du loo xam ne lu ñu complot la pour casser la carrière de X ou Y amu fi kenn ku nekk c'est de bonne foi Khalifa a tardé à prendre une décision parce que dafa bëggoon waxtaan ak Barthélemy ba ñu déggoo Barthélemy a tardé à lâcher parce que dafa jàppoon ni équipe bii la soxla pour mun a gagner Dakar c'est tout amu fi leneen mais ku nekk yor sa làmmiñ mbër mbër mbër et puis nos adversaires la foog ni mën nañu jaxase Yewwi Askan Wi laaj leen kan mooy eh, nu mu ñoom dinañu am leen doy ñu ngi ñëw ci loolu kon lii moo fi xew il nia a pas de problème entre xalifa Sall ak Barthélemy avec entre Ousmane sonk ak lii certes il y de la négligence humaine certes il y a eu des erreurs et nous les assumons mais de la à vouloir yóbbu affaire bi fenn loolu amu fi et tout ce procès qu'on est de faire à Khalifa Sall il faut que ça s'arrête c'est faux nit ñi mun nañu bañ a kontaan ci investiture yi mu def ça c'est autre chose mais wax ni dafa jaay list bi dafa lii dafa laa loolu amu fi la ca des nag ba ñu demee ba décider ne dañuy dem déposé la xew foofu direction des élections foofu it erreur humaine la parce que boobu ñoom def nañu 24 heures foofu plus de 24 heures ku dugg 20 heures ba le lendemain 23 heures 45 nelawuñu lekkuñu lu baax sonn nañu ba pare nag ñëw taxaw ñu ne leen ah lii de lu mën a nekk la. kon loolu c'est une erreur humaine Déthié Fall kenn mënu ko remettre en cause en tout cas man il a à 500 pour cent ma confiance et mes parce que nag nit ñi xaaruñu lu dul erreur am ku nekk di wax waaye Déthié Fall moo yoroon suñu suñu suñu investiture élection locale yi souvenez 70 listes yoo xam ne daw na subaak ngoon ànd ak avocat yi bi sous préfet ak préfet ak ñoom ñëpp def seen gàngoor googu di yàq suñu suñu kii suñu liste yi kooku mënuñu xëy tey depuis combien de temps la nelawul siège lay fanaan ànd ak informaticien yi depuis parrainage ba ni ñuy déposer liste yi ba ni may wax ak yéen nii ma nga ak avocat yi ñuy préparer de recours les gens sont tranquillement dans leur salon taal seen yàkkamtu ñu lu dul erreur bu ndaw am ñu loo mës a def ci àdduna baaxatul il faut qu'on d'accord erreur am na négligence am na peut-être même euh, naïveté am na mais loolu mun na am mun na dal kenn ku ne ci ñun ça ne remet absolument pas en cause ni l'intégrité ni l'engagement ni la probité ni la détermination des gens et ils ont besoin du soutien de l'ensemble de la coalition et de tous les Sénégalais parce que pièce indispensable lañ ci euh, coalition bi je dirais la même chose pour Saliou Sarr et ce qui est déplorable c'est que ñu du génn ku nekk di wax parce que ñun ñëpp demandé woon nañ leen man woo naa Saliou Sarr wax ak moom ba mu ne ma may naa la ko du ma wax le lendemain mu wax on a fait la même chose avec Déthié ça on le déplore mais nit ay nit la loolu mun na am Saliou Sarr il est euh, depuis les locales ba léegi investiture locale yi il a passé au moins une semaine boo xam ne nuit blanche lañ doon def siège ba pour def les investitures ba tey jii je ne remettrai jamais en cause l'intégrité et la probité de ces gens-là